Vamos começar represento Morgubi. Ela é uma PG. The mixtape no Plan Jazz Drop. What's up, music? mission yu day mag ñoo jëlee te fi ngeen ci mën gàtt ren di fi ay Rougidois si waa xii xoole mo wax si jam seen day pig bi gañe na fi dama tak bin bin si suman mënul ñàkk si koñ kat bi génnee si bar dama sañ see si xaar ka ma nga jom ni taatu li fag fag ju idi ñi nga reptil jaga bu marié do ko wax te dil démb balaas yow nga may Gudu dil guddi KM laa bi amul sedd fi fa mu jàmmul teel sa bopp intérêt taxoon dem nga bëgg a bokk ñaf san delloo la say mbokk écotrib la e wala classe la tolloo niveau bokkuñ classe room tata di nga freestyle ñu room pour sa ndey mu fëlee si buun KM la xanaa si buñ sol seen mooy takk seen see yaa ma ne kenn wu TCC KCC fi la PG gang dañ lay BC game over mission bi day maar ñu diriger te di ci mën gaar eh, eh. rendi fi ay maar ñi mëw tim mission wu raykaar mission bi day maar ñu dirigé te di ngeen ci mën ga rendi fi ay maak ñi mëw tim mission wu mission bi day maar ñu dirigé te di ngeen ci mën ga rendi fi ay maak ñi mëw tim mission wu mission bi day maar ñu dirigé te di ngeen ci mën ga rendi fi ay maak ñi mëw tim mission wu ok flow bu sadik talent bu unique jëmmal na school yi ni mathématique soxor ci bit ni nga man di ci sul do fi mësa gis kenn ku ma ëpp technique wàcce king bi teg ci bi yóbbu hip hop bi nigga ba Indonésie doful bu dugg ci man ma nigga ma rendi sa di xaru ngay tëdd di nelaw la bindaala son may déglu di kontaan ndax lii dafa boobu mën la noppaloo woo ma seen patron c'est normal ma imitation ma la baaba gën a fës ni gën ay taatu rangu comme gémbe amul frontière ku jóg rek dugg maa ko seppi abattoir di teg ay paaka ci puut seen chef yi mën la negi maay caka zulu dam leen tim ni asamaan kon kenn du suur neef mission bi day maar ñoo diriger te di ngeen ci mën gaa ren di fi ay maat ñi maw tiim mission wu reykaar mission bi day maat ñu diriger te di ci mën gaar ren di fi ay maat ñi maw tiim mission wu reykaar mission bi day maat ñoo diriger te ci mën gaar ren di ay maat ñi maw tiim mission wu bi day maat ñoo diriger te di ngeen ci mën gaar ren di fi ay maat ñi maw tiim mission wu reykaar mission Just donate this, just donate this, just donate this.